asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah jeudi 21 novembre 2019 ñu ñëw ak ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam sunu làmb la yëglikaay bi nga xam ne moo di La Tribune Leewtoo TV ba ca Lutte TV fu ci nekk rek xëy nañ tey fekk fa ay vidéo wala boog ay bind bu dee sunu làmb la moom lañu xëy gis wala kam ñu xëy wan ci aw foto bu fés a fés moo di ki nga xam ne nii de moo di Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye comme niñ koy faral di wooyee mu mel ni ki nag fi mu nekk nii de ñi nga xam ne nii ñoom ñooy dékku ngir bëri ak Balla Gaye moo xam Boy la B52 la ba ci tafaatin daal dafa mel ni yëglikaay bi xëy na nag samp ci ab laaj laaj ci ay nit yoo xam ne ni day seen xam-xam màcc na ci wàllum làmb bu dee ñoxo bàyyi la moom yore microcentral ci làmb ji la mu wax daal moom ne na li làmb bëgg tey mooy diggante Balla ak Boy Niang moom booba gis-gis la am Amadou Kati Diop ne ko déeréet loolu jaaduwul li jaadu mooy diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xam ne moo di Bombardier ndax Kati jàpp na ne loolu su amee ramas bu neex neex la nit ñi nar a gis Balla Diouf tamit daa mel ni moom la dëggal ne diggante ki nga xam ne moo di Balla gay 2 ak Bombardier mooy li logique te moo jaar ci aw yoon te mooy li xel man na nangu ndax revanche boo xam ne la bu tegu ci aw yoon la du jànje ko tamit jiite amateur yi moom tamit day daa mel ni loola lay ñëw dëggal la Kati Diop ak Balla Diouf wax nee na daal revanche su Balla ak Bombardier su amee danga gis benn combat boo xam ne day bu explosif la nar a doon boo xam ne daal bu nara a méttee métti lay doon mu mel ni ki daal tey ñooñu loolu la ñu xëye ci ki nga xam ne moo di Balla Gaye ak ña ñu jàpp ne moom la war a dajeel moom daje ba mu amoon ba jëlee ca ndam daa mel ni ndam la mujj ko jural lu bëri sunu làmb ko wax du samay wax muy guy gi guy gi nag daan ba mu daan Siteu daal daa mel ni da koo yóbbee ci mbirum semence maanaam daal koo xam ne boog mu ngi taxaw bu dee liggéey la mënta amaatub liggéey depuis booba tey ndax nag combat mënu koo gis ak ay bët ba bëree moo tax yëglikaay bi jàpp na ne ci guy gi fi mu nekk ni moom ay mbiram compliqué na wala ak jaxasoo dal di ca dugg ndax ba mu daanee Siteu ba tey daal la ko jural moom dafa bariwul sunu làmb xëy tey ba mu daanee ba pare la nga xam ne nii day moo ca topp mu di ay karawaan mu waroon koo def defu ko moo tax nag ay supporteram mere nañu ko lool mu mel ni ki Modou mi nga xam ne nag mooy roi des arènes ba mu daanee Eumeu Sène ba nekk roi ba tey daal ay fansam daa mel ni moom noppi ga mu noppi ak ñàkk gis gaag karawaan yaag yañ daan tàmm ci moom te Modou defalu leen ko moo tax fi mu nekk nii moom dañu koo mere ba fut ba tey sunu làmb xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu ci ki nga xam ne moo di Modou Lo leneen loo xam ne tamit laatir bi da caa ñëw muy Modou ak Gris mu mel ni ki ñoom ñoom ñaar nag journal bi nee na day amateurs yi dañoo jàpp ne comme dañoo bokk leen daanoon muy ki nga xam ne nii moo di Balla Gaye mujj ci Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moo di Modou Lo moo na ñoo xam ne nii bëgg nañ ko mu mel moom mbokkam ma nga xam ne moom la dëkkal ca parcelle muy Garga Mbossé moom yëglikaay bii di sunu lamb mu ngi ñuy xam ne day weekend bii nag la na la jóge fa nga xam ne mooy ca réewum États-Unis ñibbi si Sénégal ginnaaw ay weer yoo xam ne daal def na ko fa nekkoon ci bopp boppam di préparé wu Garga Kisos daal dina ñib si fii nga xam ne moo di Sénégal keneen koo xam ne nii moom mu ngi Sénégal war a jongante la 15 décembre ca Gambie muy Baye Mandione yëglikaay bi du suñu làmb nag moo xëy ñëw ci moom nee na Baye Mandione day fi mu nekk nii ndax Gambie du doon suuf si nga xam ne moo koy sauvé ndax nag li mu nekkee daal ci làmb fi mu nekk nii tar na lool ci ay gëj am ndam yëglikaay bi du suñu làmb xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ñeentat yoo xam ne daal Baye Mandione toog na ko mënta am li nga xam ne nii day moom moo di victoire ak leneen loo xam ne daal saxal na ko fukki defet ak ñett yoo xam ne enregistré na ko mu mel ni ki kon daal dem ga mu nar a dem ca Gàmbi te ka nga xam ne moo di Jamaïque kenn ko faa yóbbu mu war a jàkkaarloo xoyantaan ndax bàyyi du suqalikoo ji fa nga xam ne moo di Gàmbi yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dinu ko wax ñeneen ñoo xam ne tamit bu nu demee fa nga xam ne nii de moo di ca Leewtoo TV faral leen di fekk muy ki nga xam ne moo di Maama Lamine ak Jokkel foofu Fallou Ndiaye da nga ko cay gis ku nekk di wax la nga nar waaye ci kaf agréé mu mel ni ki kon daal ñaar ñii moom lu méttee métti la fas yéenee defante kenn koo xam ne ci Leewtoo TV tamit mu fay wax moo di dem ba xariñ loo moom nag la muy xamal Ama Baldé ne kon a leer ci ay noppam Modou Lo moom bis bu lekkee avance su Ama ne na Modou ñun bu keroogee lanu ko fay bu doon deux cent millions la na ko nun ay xaritam ak ñiy am di jàmmam lanu yor noo ko cay def ngir mu daan Ama Baldé ndax nag ndamam mooy sunu ndam defetam mooy sunu defet loolu may wax ki nga xam ne moo di dem ba ba tey ca Leewtoo Leewtoo TV la Bombardier mu ngay wax kàddoom yu nga xam ne ni yu méttee métti la te daw yaram ci diggante ak magam ji nga xam ne dafay bàyyi ko muy Pape ja bañ ko xamale ne day ne ko kii li ko deseeti bariwul ne na su ma toogaan ak moom du def ci man dara waaye bu ma ko tàggu bay ñibbi nag nara a tëddi bàyyi ko ne na ca la ma affaire bi di jàpp mu nekk loo xam ne daal metti na lool ba tey mu ngay leeral moom Bombardier ne na li leer ba leer day ah dugaat ci géew di bëre dina metti trop ci moom waaye nag ne dina ko jéem a dékku ngir jéem a magam ji nga xam ne dafay jóge ba tey Bombardier bu ñu demee ca Leewtoo TV fekk nañ ko fa ak ñoom Tyson nag ñoom Modou Lo mu nga fay wax tamit ba ay rongo jam di génn fa nga xam ne moo di ca Lutte TV moom Bombardier yëglikaay bi moo ci ñëw tey ba tey leneen loo xam ne tamit dañ cay dem muy fi nga xam ne nii mooy ca lambi simple ja ca sunu ki nga xam ne nag moo di ordinateur la olof yi daal wax naan dóor fayu moom la def ci digganteem ak général Malika mi nga xam ne ren biñ nekki dàq bëri ci lamb ji ci at mii jeex général Malika lañ ko joxoon ordinateur topp ca ginnaaw mu mel ni ki nag fayu na ci moom ci ab combat boo xam ne dañu ko séqoon ci weekend bi nga xam ne moom la ñu génn revanche ba jël na ko ndax moom ordinateur daan na général Malika jël boo xam ne bu leer leer la keneen koo xam ne moom nam la mu am kër dimanche ca Adrien Senghor ca journée amal daaba muy Mamadou Seck moom ne na loolu bettu ko daan bi nga xam ne daan na ko ngel jon daal jàpp na ne loolu moom nekkul loo xam ne lu ko bett la moom mi nga xam ne nii dey moom moo di Mamadou Seck loolu la xëy tey ñëw di ko wax ñeneen ñoo xam ne nag moom troisième la ñu jël ren ci li nga xam ne moo di sunu làmb door bi mooy waa école de Njaga saar yëglikaay bi di sunu làmb ñëw dafa leen photo wu yanj B52 nga ca Boy Soose ak ki nga xam ne mooy Boy Notaire top 5 Mbay Jaw ak ka nga xam ne moo di Njaga Doole mu mel ni ki affaire yi moom du yàgg fi ak yéex a ñëw li am solo daal mooy liggéey ndax nag liggéey dong mooy fay mbokk waa Leewtoo TV leen <laughs> nuyu di leen gërëm leen sant Babacar nga àlloon si euh, revue de bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa lay fay Ndeye Koumba Fall di la ziar yow tamit di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow ah di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën na si àddina bi. Amin Babacar ni ñëw nag ak sunu laam sunu laam dafa xëy nag def benn samp laaj ne kan moo war a tey jii défier ki nga xam ne mooy eh, bo eh, Balla Gaye nee nañu ki nga xam ne mooy ñoxambaay nee na moom gis na Balla Gaye Boy Niang 2 ki nga xam ne mooy Kati Diop nekk si école de lutte eh, Ndakaaru nee na Balla Gaye Bombardier revanche bu neex lay doon ki nga xam ne mooy Balla Diouf nekkoon ancien mbër écurie Fass ak écurie Yoff nee na Balla moo gën logique keneen ki nga xam ne mooy du daajee ko président des amateurs moom moom tamit lu ma gis mooy Balla Gaye Bombardier Bombardier nee na revanche bu explosif lay doon Babacar waa loolu moom la ñu xëyee tey ki nga xam ne mooy ñoo ko bàyyi moom tamit ñu koy nuyu di ko siyaar di suñu kilifa nekk si làmb di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ne Balla Boy Niang moom la làmb soxla moom loolu la wax waaw loolu nag xalaat lañ ne laaj ku ne joxe sa xalaat nit ki nag am nga droit joxe sa xalaat Balla Boy Niang nag ñu ngi wax yaa ngi dégg waaye kan yi daal euh, ku nekk daal li nga li nga ci xalaat ngay wax combat bi nag la ma si wax moom mooy li leer mooy kan buy am mu mu gaaw si Balla lay neex mu yéex Balla lay neex parce que li olof yi wax moom mooy rek cëggal guyam ci digganteem ak Boy Niang digganteem ak Bombardier nag tamit foofu da ñëw boo fekkee Balla Diouf ne mooy jaadu Kati Diop moo jaadu ki nga xam ne nii moom moo di euh, Doudou Diagne Diécko président des amateurs ne moo jaadu yaakaar naa kon tey bu doon vote la dama naan ñooñu ñoo gagné. parce que ñeent la ñu laaj ñetti ñoom ñoo validé mook Bombardier bee dàq nañ ko kon li am solo ba am solo mooy que diggante Balla ak Bombardier nag moom Balla revanche la ko Bombardier maanaam Bombardier da ko yoral revanche maanaam Bombardier da koo daanoon te yaakaar naa ne daan boobu ko Balla Bombardier daanoon Balla foog naa ne bëgg na ko fayeku balaa carrière Bombardier jeex yaa ngi dégg kon yaakaar naa tamit revanche su Balla ak Bombardier amul tamit lu ko gën a logique pour man parce que làmb dafay am revanche te ku la daan mbur mu toll ni Bombardier ak Balla Gaye fi mu toll si làmb yaakaar naan suñ ku ko daan war na ma moom la jëloon couronne bi sax voilà ba yaa ko tax mu nekkaat deuxième fois euh, roi des arènes kon defe naa c'est très normal seen combat moom wax dëgg yàlla gëm naa ne loolu ñoo ñu wax ku ko tëggit da gis combat bu explosif ndax Bombardier ak Balla kenn du ci dellu ginnaaw Babacar loolu am na solo keneen ki nga xam ne nag waa fans mi ni nga koy wër mooy acteur roi des arènes muy Modou Lo nee na gistuñ ko fenn caravane boo xam ne koy organisé defatu ko moom daal gistuñ daal seen idole daal. waaw ba sax dañoo xaw a mer <laughs> muy. xaw na mer dañoo mer <laughs> dañoo mer ma ciy nuyu kon ñoom fans Modou Lo yëpp ñoom waa génération xarañ ak famille ak xarañ moo ñu booleeg waa TMAX parce que noonu la ñu seen bopp yaatu nañu maanaam koo teg bët. du caravane du loo xam ne nii daan nañ ko def dajeek moom bëgg seen victoire ah loolu nag defe naa ne warta mën a nekk luy metti warta xulo ba warta sori parce que damay yoo xam ne que day mel ni ki ki bëgg fu mu daan ak ku bëgg ko wét li ndax Modou supporter yooyu mooy dooleem supporter yi tamit Moodu moo leen di bëggal kon defe naa bu ñu waxtaanee rek xalaat naa dinañ trouver terrain d'entente ba nga xam ne nii lool dina mën a am parce que tamit vraiment xam naa dañ koo namm bëgg a féete seen leen gëstu waxtaan ak ñoom parce que tamit nit ki amul lu dul ki lay jàppale te yaakaar naa ne moom ay supporter am mooy dooleem supporter itam Moodu moom la ñu bëgg. waaw keneen ki nga xam ne nag ay supporters nag bëgg nañ si moom victoire mooy Baye Mañoon nee nañu nag fee mu war a dem si Gambie le 15 décembre moom ak xoyantaan nee na daal il faut que mu gagné parce que treize défaites la amagum te neen depuis parce que quatre ans amagul victoire amatul victoire waaw loolu moom yaakaar naa ne lu jar a wax la parce que tamit Baye Mandione dafa nekk mbër mi xam ne mbër mu mag la ci làmb ji parce li tax mooy bëreem mën a bëreem fitam faydaam ak itam li ñu soxla ci mbër mooy day fecc ba mu neex mbër mu saf xorom la kon yaakaar naa mbër mu toll noonu tey ci làmb bu ñu sañoon fii moromam nekk ci làmb dafay nekk mais nag sport mu tëddee noonu des fois day yéeg des fois mu wàcc tey nag may nañ ko occasion a dem Gambie a jonganteeg ah, boo xam ne nii du yomb parce que tamit ka muy dajal xale la boo xam ne Gambie nee nañ mooy roi des arènes bi tey ni Modou Lo nekk roi fii Sénégal kon moom day bëgg moom tamit garder lii ak lii ak lii fii maa ko moom bàyyi itam ndam bu ko fa amee dina baax trop ci moom ndax 4 ans sans victoire plus nga am 13 défaites defe naa loolu itam dina ko bëgg taxawal mu yem fa mu de jógaat ak ay ndam mais nag nañu yónne yàgg rek bala 15 décembre ñuy di ci nuyu waa Gambie yépp moo initié loolu muy jamaïcain di ko ñaanal yàlla mu réussir ko ak jàmm barke yonent bi journal bi aussi mi ngi xamal ne ki nga xam ne moo demoon États-Unis Garga Mbossé euh, nee ñu daal week-end bi si la ñibbisi incha moom Garga kon war a mën a ñibbisi Sénégal nag ngir nag am combat ndax def defe naa digganteem ak Sa Thiès waree su koo mën a romb te des cee war a wax làmb la digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di Modou Anta bu Thiès làmb la digganteem ak ak guy gi moom actuellement bëri na ay adversaire de taille mooy tribune tribune daal nee nañu combat Gris Bordeaux Modou Lô daal nee na euh, <laughs> mu taxaw waaw taxawal ko du yomb ah naa ne est-ce que taxawal ko dina yomb Gris yi des fois faral di wax mooy moom la ñuy gën di xaar néew mën nag du ñu bëriwaat parce que war nañu mën a bëriwaat bëriwaat troisième combat lu war a man a nekk la waaye nag waxi nit ñëpp mooy Ama Moodu wala au moins Moodu Tapha Tine Gris moom yaakaar naa ne adversaire am man te yaakaar naa ne Lac ni Guiers numéro 2 wala Ama Baldé man bu ma ko doon tànnal tey foofu laa koy awale wala mook Tapha Tine itam lamb gënu koo jaadu donc suñu jógee nag euh, fi nga xam ne mooy euh, ki nga xam ne mooy Bombardier si troisième jour ki nga mooy magam bi am na nag ay kàddu yoo xam ne sànni na ko fa Babacar wax na tamit les derniers moments yi nga xam ne dund na ko ak xam ne mooy magam ay confidence yoo xam ne tamit def na ko si ak euh, si micro Leewtoo TV. waaw waaw loolu. si tribune nañuy jeexale ak Leewtoo TV Leewtoo TV dem demoon na si troisième fekk nañ fa nag Bombardier Dieng wax na nag ay kàddu yi nga xam ne euh, sekk na ko ak euh, magam ji nga xam ne balaa muy génn àdduna wax na daal euh, les derniers moments de la vie de Pape Dia def na tamit ay témoignages yu yu bëri kilifa yi tamit ni ngi fa woon Babacar. waaw loolu am na démb vraiment mu nekkoon foo xam ne ni yaakaar naa ne démb ku fa dem rek di nga xam ne booy dund si àddina jéemal a def lu baax rek yéene ko yéene ko nit ñi parce que nit ñi yàlla moo leen fi indi te indi gi mu leen fi indi kenn du am ngërëmal yàlla lu dul kani nit ñi dañ laa gërëm. ci kaw lu méngoog lu neex sunu borom kon defe naa dem li waral ministre de la république déplacé wu muy Matar Ba mbër yi nga xam ne ñoo bokk ak géew déplacé wu maître Omar Youm tamit di ministre déplacé wu président CNC ñoom Tyson Modou Lo Gris Bordeaux Yékini kenn desul ñëpp jóg ça veut dire que te Pape ja nekkul woon mbër mi Bombardier ji mooy mbër mi yaa ngi dégg kon moom ñooñu ñëpp ku ci ne seqoon na ak yow lu tax nga war a bu bisam jotee surtout bisu naqar nga mën a déplacé wu kon yaakaar naa ne yàlla na yàlla wàcc yërmandeem ci kawam barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mook bépp jullit bi tëdd ci suuf Bombardier nag la mu wax defe naa ne ku mu dawul sa yaram ku ne wala ku mu yeewul dara dootu la yee ndax lu jar xëccoo moom jàpp na ne gisatu ko ci àddina parce que la mu dund la boo ko bokkal ndey ak bàyyi mu daan taxaw di dox nga dem ba mënatu la yëkkati boppam nga koy defal léppam ah ñu ne déet waaye nga jël dugal ci suuf suul war na ko ginnaaw loolu ndey Kumba Fall lu lu lu yéeme ngi noonu kon daal yaakaar naa ne nañu yéeneente jàmm di waxalante lu baax ku gis sikki ci sa morom woo ko ndànk ci ruq nga wax ko ko parce que loolu mooy àddina parce que yëpp day jeex lépp lépp lépp bés day ñëw barki Serigne Bamba wala boog wallaay la sim lépp dañuy ñëw rek benn jour mu jeex kon daal yàlla nañ yàlla jàppale te xiir ñu si boppam ñu yéenente lu baax man nag li ma gën a marqué ci wax ji li mu wax ka ni dem na ba benn moment mënatul yëkkati cëram mais dina def nii ay loxoom pour julli kon ça veut kooku waaw ak yi bëtam te loolu suñu borom bi yaakaar naa kuñ ko gisee mu ran ñu am